am naa koo xam ne kii ren la am bac am naa koo xam ne aussi bi mu amee bac ak léegi ça ça trois ans mi ngi euh, Bambey donc te am naa fi trois élèves actuellement yoo xam ne ñu ngi fi kon donc loolu rek war na nekk motif boo xam ne war na tax ma engagé wu pour jàppale sama njaboot jàppale njabootu dëkk bi jàppale njabootu commune commune Kër Moussa. lan nga xalaat ci mandat nga xam ne fal nañ la ko. waaw mandat bi li ma ci xalaat mooy équipe bii nga xam ne tey dañ leen a fal muy équipe bu ñu am yaakaar yaakaar boobu. ñu taxaw ci taxaw ci jéem koo doxal à cent pour cent a ah, ba xam ne équipe bi li leen fale woon yàlla xam na ni def nañ ko parce que it loolu moo ci am solo amul salaire bu ci kenn di am amul kenn ku ci kuñ ciy fay dara bëgg defar ak bëgg a jàpp ak bëgg a rek moo tax kenn ko nekk engagé wu pour euh, dugg ci liggéey bi euh, bu ko defee li ma di sant mooy ah wax dëgg yàlla euh, leer na nañi liggéey rek moo ci des. ah may ñaan nag képp koo xam ne kii ci équipe bi nga bokk nga jàppale ñu jàppale sa bopp jàppale commune bi ci liggéey bi ndax équipe bi euh, génn man ci laa bokkoon mais biñ ñu falee am na ñoo xam ne keroog la leen mujj gis keroog la leen mujj gis te loolu vraiment taxul liggéey bi dox ma doon ñaan nag euh, kenn ku nekk jàpp ci waxtu boo xamee daje am na boo jot sa convocation nga ñëw def li nga war a def dem sa yoon. loolu daal maa ngi koy ñaan euh, ñi fi nekk ñëpp di équipe bi quoi. waaw xam nga autorité yi li leen di ñaan mooy euh, ñun mënuñu dara parent d'élève mënul dara amul dara encore ci ndimbal rek lay dox ndimbal moomu nag dimul fenn ful ci école bi dimul ci poste kenn ci équipe bi ci école bi lañ koy delloo moo xam salle de classe la ñu soxla ñu tabaxal leen ko moo xam ay table banc moo yàqu ñu réparé ko. moo xam euh, ndox moo am jafe-jafe ñu réglé ko moo xam courant moo am jafe-jafe ñu réglé ko ah loolu mooy suñu liggéey ñun ah ñu bëggoon nag bépp kilifa boo xam ne bii yàlla may na la nga am loo ñu mën a jàppale ah nga jàppale ñu ñu liggéey jàppale bi nag xam naa ci ay conditions yu leer lañ koy teg ah li ñu soxla nañ ko bind mooy lu leer nañ ko war a valider valider ko ñu yóbbu ko fi ñu ko war a yóbbu ñu jàppale ñu indi ko def ko fi ñu ko war a def mu am lu leer naññi boo léegi ku bëgg a xam li ñu joxoon fan la dugg ah kii moo la koy xamal boo ko defee coow du am jàmm am wax dëgg yàlla loolu daal lay sàkku ci équipe bi ñu jàpp ci waaw euh, wax dëgg yàlla dafa mel ni c'est la première fois mu am ci suñu euh, école ah ñu ciy gërëm nag euh, est-ce que kooku tant tant bi parewul mën ñu ko jàpp il faut d'abord abord waaw ma ne bu def na dal ma jot PV bi ba ji jox mako dal daal set seet euh, nu ma tëralee réunion bureau pour ñu gëna waxtaan gëna a mën ci liggéey bi. lolu loolu euh, peut-être euh, président de li borom kersé go xamni peut-être fogg na ni bu ñëw fi lan mëna xew tax muy na absenté peut-être mo gëna a sedd moo ëpp jamm mais wax dëgg yalla liggéey na liggéey na parce que comme ni ko Alassane waxé fi ñun ñëpp ci japp mën naa ni bloc bii nekk fii rek moo fi nekkoon mais salle de classe fi nekk yëpp ay ndimbal la ak loo xam ne appui bi ñoo ko def ci ay fonds parallèles yoo xam ni wax dëgg yàlla soit muy verger bi comme ni ko Alassane waxee euh, verger bi président Leyti moo ko initié fexe ba taxawal ko ah créé benn bureau ñu gérer ko ah ñun ñëpp lu ci jàpp muy générer ay bénéfices yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, lu ci bari ci lañ ko defaree kon donc. berger bobu aussi tamit dafa nek lo xamni ne ci kër gi parce que barna lu mu def te bu fi nekkul woon aussi meuna galankor suñu liggey ah juro bi dal wax deug yalla man limay lima ñaan dal moy ngeen japp parce que kenn mënul dara limay ñaan dal ni fi dajé ni nañ fi dajé noonu toujours pour liggey ban avancer parce que kenn ku nek am engagement bu jël bo xamni ya ko war def te bo bo ñewul def ko mu soxé may ñaan ngeen ñew kenn ku nek di def sa liggey waaw lool dal mang koy ñaan Um, um,